salaamaaleykum internautes yi nuyu nen leen jaar leen ñëw ak yéen ci xibaaru tàggat yaram yi laataa ñuy ñëw ci yaatal gi nag day ñaan képp kuy gan ci page bi te abonné goo ñoo ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche bi ndax lu ñu dugal rek nga bokk ci ña koy njëkk a gis ñu door xibaar yi ak olympique de Marseille bu Bamba Dieng ak. Pape Gueye ñoom nag tey dañ doon amal match amical ci diggante ñoom ak AC Milan bu foode Ballo-Touré wante ñoom dañoo nërmeelu ci kanamu AC Milan 2 bi à 0 la match bi jeexee wante ki nga xamante ne mooy Pape Gueye joué na ci première mi-temps ba ci bi la match wante Bamba Dieng comme ni ngeen koy gisee ci photo bi ca Bamba la toog lii nag mooy wane ne coach bii di Igor Tudor wul ci Bamba Dieng ci saison bi ñu dëmbal ndaxte Bamba ñetti match amical yu Marseille def yépp benn jeu ci benn minute bépp yëpp ci baa bi la ko toog wante Pape Gueye moom ca deuxième mi ba la génn ki nga xamante ne mooy Fodé Ballo-Touré ci côté AC Milan moom nag ca deuxième mi-temps ba. waaye Désiré Segbe tamit mi ngi ci biir xibaaru tàggat yaram yi moom nag xaritu saajo maane la ba ñu nekkee génération foot ba léegi ña ngay ànd foo gis saajo maane rek gis ko ci wet ga moom nag xaatim na contrat bu tollook ñaari at ak club bii di Bayern de Munich Bayern nag moom Désiré Segbe dafa def ay test test yee nag ba mu koy def def na ca deux semaines ba mu ca noppee nag ci la convaincre dirigeant yu waaye bayaar Bayern Munich ñu xam ne kii mën na li def te mën na football moo tax xaatim dafa contrat bu tolloog ñaari at moom nag la ko waa Bayern na xamal mooy da ci équipe réserve ba lay commencé football balaa ñëw ci équipe bu bu ñu jigee foofu dañuy dem ci Sofiane Diop moom nag doomu Sénégal la ak France ak Maroc jamono yi nekk ay mbiram ma ngay yëngatu yam mercato ba ndax club yi ka soxla di ko bàyyi xel bari na lool ku ci mel ne Borussia Dortmund mu nekk fële ca Allemagne ca Bundesliga ba ma ngi koy bàyyi xel l'OGC Nice tamit bàyyi na ko xel club bii di Olympique de Marseille nekk ca France ma ngi koy bàyyi xel waaye jamono yi club ba gën a soxla Soufiane Diop di dox ci ay jéego mooy Leicester nekk fële ci Angleterre ca première ligue moom nag la mu bëgg mooy jël doomu France bi ak Sénégal ak Maroc indi ko ci seen club ba mu doxal fa ndax Soufiane Diop ku mën li mu def la te football am na ci moom yaakaar waaye Soufiane Diop bëgg naa dem fële ca première ligue ca Angleterre ndaxte championnat bu ko neex la xibaar boobu nag l'équipe moo ko xamle. bu ñu jugee ci Soufiane Diop ñu dem ci Paris bu suñu gaynde yi di Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo ñoom nag am nañ dem ci kanamu FC Nantes ci trophée des champions bi ñu doon joué tey jii Paris jël na coupe ndaxte moo gagné ki nga xamante ne mooy FC Nantes 4 bi à bi yéen ak kaka dugal mooy Messi Neymar Sergio Ramos wante ki nga xamante ne mooy du jàlloo ak Idrissa Gana Gueye ñoom ñaari ñëpp joué wuñ bi la match ndax ca bamba lañ toog kon mbokk yi yëf yi fii la ndar képp la dina wax ba ca kanam ak ci beneen vidéo ci kàttanu yàlla